lakum xayran lakum in kuntum taalamoon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo tafa safoo seen télévision Mafatihul Bichri ñu ngi am mbégte ci jàkkaarloo ak yéen waaye tey nag fas yéene na indil lu am solo te mooy yóbbalu aljuma yóbbalu aljuma nag incha allahu taala niñ ko fa yéene defee mooy ay waxtaan yu am njariñ yoo xam ne dana amal taalibe yi njariñ waaye dana amal jullit yëpp njariñ tey nag xam ngeen ni ci yóbbalu aljuma ji ginnaaw bu nu jullee aljuma bu pare fii ci jumaay Tuubaa ñu ngi nii ak sunu benn waajur woo xam ne sëriñ Mouhamadul Bassirou Sall na tudd doon doomi sëriñ Ndiaga Sall sëriñ Mouhamadou Bassirou Sall nag doomi sëriñ Ndiaga Sall sëriñ Ndiaga Sall moomu nag ku tedd ci Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasuul moo ko yaral boppam waaye muy koo xam ne ku jëlee ay waxtaan yu bari la ci sëriñ Tuubaa rawatina tomb yi nga xam ne sëriñ bi daan na ko tomb njaareem kon nag ci lañ fas yéene ñëw ak sëriñ Mouhamadou Bassirou Sall incha allahu taala mu ëndil lu benn tomb boo xam tomb yoo lenn ci tomb yi nga xam ne tomb yi Sëñ Tuubaa la tey nag am juróomi tomb yoo xam ne tomb yu yitteel la tomb yu fees dell ak i maanaa la moom lañ ànd ak moom mu andil na ko incha allahu taala kon mbokk yi ñun ñëpp dañ ko bokk teewlu. aouzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi euh, noo ngi leen di nuyu te fas leen yéene jottali euh, tomb yi Sëñ Tuubaa daan tomb sama waajur Sëriñ Njaga Sall daan ko fekke euh, daan ko li ma dégg. man lépp lu ma la ne Serigne Touba nee na ba mu koy wax ka digg ko moo ma ko wax Serigne Ndiaga Sall moomu nag ay tombam yu mu daan tomb yow moom Serigne Touba mu di ko déglu moom la taalibe yi sàkku euh, ma leeral leen ko euh, tomb yi nag juróomi tomb la Serigne Touba dafa def nii juróomi tomb fa baaraam bi teg ci digg bi ne càmsaa ngi nii. cam si mooy nit ki lim bëgg a ngi nii saa yoo xëyee jëm ci nun ñi kenn ku nekk ci nun ba nga xëyee yaa nga xëy ci li nga bëgg waaye nag am la ne sa gannaaw li la topp te bëggoo mu jot la muy musiba li yàlla bëgg ngi sa wetu loxoom nday joor li yàlla bañ a ngi nii sa loxoom càmmoñ Sëriñ Tuubaa wax ne moom cam sii ana na mu mën a def nag moom ba jot ci lii mu bëgg te mucc ci lii mu ragal sëriñ bay Sarr ne ko Mbàkke loolu day moom mat xam mu ne ko na sax ci li suñ borom bëgg rek su saxee ci suñ li suñ borom bëgg sax ci sax ci sax ci sax ci diir bu yàgg suñ borom mi leen boole bind ñoom ñi ñëpp mooy daal di wax tomb bii ci kanamam nga xam ne moom la cam si bëgg wëlbatikul tase sama sama sama sama jàmm bii mu jëfandiku ci yow loo ko soog gannaaw lii ma bëgg rek ci la ne yow mi bëgg dong laa ko daal di fayee nga sa mbir yëpp tàmbali yéwén lépp loo bëgg lépp loo bëgg rek tàmbali yéwén gannaaw yaa ngi ci lii yàlla bëgg yàlla wax lii nga bëgg na dikk fii taseeg yow nga jëfandiku ci yow loola soog nga sax ci sax ci ba yàgg son borom daal di xàjj li ci sa gannaaw nga xam ne moo toppoon ci yow di la tàpp te bëggoo mu jot la sama jàmm boobu kat na nga maanu bul ko jot ndax gannaaw lii ma bañ laalu ko yow mi mu bañ bu ko jege mukk lii ma bëgg ci la ne lii mu bëgg dong laa koy daal di fayee fi saasi gannaaw lii ma bañ nag jegewu ko yow mi mu bëgg ko jege ba tax Serigne Touba Mbacke nee na képp ku jub mucc nga képp ku jubagul muccagoo ku dul jub mukk nag doo mucc mukk ba tax na ku bëgg a mucc ku ne da ngaa war a jub loolu mooy ñeenti tomb yi nga xam ne moom lañ sàkkoon ma euh, euh, leeral leen ko juróomi tomb yi juróomi tomb yi Serigne tubaa dafa tomb benn tomb ci kanam tomb ci digg bi tomb ci gannaaw tomb ci ndeyjoor tomb ci càmmoñ daal di fab baaraamam teg ci bii ci digg bi ne càmm saa gi nii mooy nit ki li mu bëgg a ngi nii saa yoo xëyee wuti ko waaye nag am na lu ne ci gannaawam di ko dàq muy musiba bëggut mu jot ko waaye li yàlla bëgg ngi ni ci loxob ndeyjooram lee la bañ a ngi ci loxob càmmooñam cam sii nag na muy def ba jot ci lii mu bëgg te mucc ci lii mu ragal sëñ Baye saa ne ko Mbàkke loolaa jara xam mu ne na sax ci li yàlla bëgg rek bu ci saxee dë ba sax ci sax ci bu yàggee suñ borom mi leen goole bind mooy xaj lii ci kanamam wëlbatiku sax rek sama jaam bii mu jëfandikoo ci yow lu ko soob gannaaw lii ma bëgg ci la ne lii mu bëgg rek laa koy fay daal di sa mbir yëpp tàmbalee yéwén nga tàmbalee yéwén nga tàmbalee bayaamuk daal di xaj lii ci sa gannaaw di la dab te muy musiba te bëggoo mu dab la sama jàmm boobu ko na nga maanu coom gannaaw lii ma bañ laa la ko yow mi bañ bu ko jege fenn ba tax na ku jub mucc nga ku jubagul muccagoo ku dul jub mukk nag doo mucc mukk